asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ba léegi pënd bi wuréegul ginnaaw élection législative yañ doon amal ci dibeer gi ba léegi coow laa ngi ne kur ndaxte ñii nga xam ne ñoom ñooy waa askan wi lëkkaloo ak wàllu ñoom ñi nga xam leen ne ñoom ñoo am ndam ci wàllu élection yi wante ba léegi ñii di waa Benno Bokk Yaakaar ñoom daal dinañuy xamle it ne ñoom ñoo am ndam julikaay bi di Sud Quotidien bi ngi ñuy xamal ne kon ba léegi xeex bi ñoo ngi koy wéyal wante li am ba des moom mooy ne ñii nga xam ne ñoom ñooy waa coalition yeewi askan wi ak ak wàllu ñoom daal dinañuy xamle démb ginnaaw ab ndaje boo xam ne ñu ngi ko doon def ak taskatu xibaar yi ne ci téeméer ak fukk ak ñaari sièges yi nga xam ne ñu ngi ko doon euh, xëccoo ci biir département yi ñoom am nañ ci ci lu tollook juróom fukk ak juróom loolu moom boo ko boolee ak ñaar fukk ak juróom yi nga xam ne am nañu ko ci liste national bi loolu daf leen di jox juróom-ñett fukk ak ñetti député yoo xam ne mën nañu ko am ci assemblée national bu nar am ci lu tollook téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi député loolu it it di firndeel ne ñoom ñooy am majorité foofu nga xam ne moom mooy ca assemblée nationale ci biir colikaayi bii di libération ki nga xam ne moom mooy Déthié Fall ma ngay xamal kon waa Benno Bokk Yaakaar ne léegi nañ jàppee seen bopp l'opposition foofu nga xam ne moom mooy ca assemblée nationale ndaxte ñoom limu député yi nga xam ne am nañu ko foofu nga xam ne de moom mooy ci assemblée nationale ëpp na fuuf li nga xam ne moom la waa Benno Bokk Yaakaar am Déthié Fall paregul Khalifa Sall di ko ci feelu ndaxte moom ma ngay xamal ñi nga xam Benno Bokk Yaakaar ne li am ba des moom mooy ne ñoom ñoom ñooñu di waa Yewwi Wàllu ñoom ñoo gagné élection yi Lamine Thiam bu wàllu di leen xamal ne cohabitation moom du ab gàcce te loolu sax day gën a doxal réew mi wante colikay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne kii di soxna Aminata Touré nee na ala mukk ñoom ñoo gagné li nga xam ne moom mooy élection yi ndaxte am na ci lu tolloo ko fanweeri département yoo xam ne ñoom ñoo fa am ndam Aminata Touré kon di xamle ne cohabitation moom dañ koy dégg rek de wante du mës a am fële nga xam ne de moom mooy ca assemblée nationale autolekaay bii de Le Soleil nekkoon ba léegi jiixi jaaxa am na ci li nga xam ne de moom mooy élection législative yi ndaxte su fekkente ne waa Benno am na gox yu bëri yoo xam ne ndaa dinañ fay am ndam yu mel ni Mbour Kaolack Louga ak Kolda fële nga xam ne kon moom mooy ci diwaanu Ndar Sédhiou Goudomp ak Tivaouane foofu moom l'opposition bi moom moo fa teg tànk benn Bokk Yaakaar ba léegi ñoom di xam le ne ñoom ñoo am ndam ci wàllu élection yi rax ci dolli ñuy xamle moom ne wàllu cohabitation xel xalaatul sax ñu daal daal di koy amal fële nga xam ne li moom mooy ci assemblée nationale autolikaay bi di l'observateur ne li mënti am daal moom mooy ne ndamu réewum Sénégal la ñu daal di nemmeeku euh, ci wàllu élection bi ñu daal di jógee rax ci dolli liñ doon xalaat yëpp ci wàllu élection yooyu dafa mel ni ne gisuñu ko fa suñu naataango yi sax daal di ci seq waxtaan ak ñaar ñoo xam ne ay psychologue leen di Ngor Dia ak Ismaïla Sène ñoom ñuy def ab jàngat jëmale ko euh, ci kan mooy électeur ñoo dem voté ji dafa mel ni léegi gisuñu ko rax ci dolli ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi léegi daal nañuy xam ne ñoom am nañu doole ndax mun nañu fi dindi koo xam ne dañ ko fee teg wala ñu daal di indi ay coppite ci lépp loo xam ne dafa jublu ci réew mi ki nga xam ne nag moom mooy Ousmane Sonko tey ji sax autolikaay bii di le vrai journal dafa def ab taxaw seetlu ci ay mbiram ndaxte suñu naataango yi dañoo gis ni ci diirub juróomi at ki nga xam ne de moom mooy usman Sonko am na juróom juróomi bës yoo xam ne daal na ci wane boppam ba njëkk ma nga tàmbalee ci wàllu élection législative yu ñoon amal ci atum 2017 foofu nag la ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko njëkkee nekk député ci atum 2019 mu bokk ci élection présidentielle bi daal di ciy jël ñetteeli place te loolu moom guléet ñu koy nemmeeku ci kenn koo xam ne ma ngay soog di bokk ci biir ay élection ci weeru mars bu atum 2021 ak affaire Adji Sarr boobu moom askanu réewum Sénégal ci boppam ñoom ñoo ko won ne ñoom ànd nañu ak moom te it dinañu ko jàppale ci lépp ñeenteeli date bi moom mooy élection locale yu atum 2022 la Sonko nekkee maire bu diwaanu Ziguinchor daal di wane doole gi nga xam ne moom la am foofu wante it ci biir Sénégal ndaxte ci wàllu élection législative yi ñu doon amal barke Demba Ndiaye kii nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko dox na ci ay tànk jéego yu rëy ba sax tey ji coalition gii nga xam ne moom la bokk di yeewi ak tamit ñi ñu lëngoo di wàllu dal di ci am ndam jeexale ko ak wàllu tàggat yaram tey ji record di ñëwaat ci ay mbirum kii di Bamba Dieng moom mi nga xam ne nag match yu mujj yi nga xam ne moom la Olympique de Marseille di amal dañu di toog ci banc bi julikaay bii di record di nu mu gis moom mooy ne ki nga xam ne de moom mooy Bamba Dieng dañu ko bugg mu daal di jóge ci Olympique de Marseille dem ci beneen club goo xam ne bu fekkente ne dina mel antu na koppar gu takku la ñu nar a dugal ci ay gafaka Olympique de Marseille wante dafa mel ni kii di Bamba Dieng moom àndu ci tey àndu ci ëllëg keneen a ngi nii di ko jàppale mooy ki nga xam ne moom mooy agent om di Seydou Bokar Seck moom mu daal di yëkkati kaddoom di xam ne daal ne fu mu nekk ni daal li am ba des moom mooy ne nañu wax Bamba Dieng ndax day wéy moom mooy dem ba jeex dem ba ñeet ci terrain bi te it loo xam ne nag moom la ko sas mu daal di koy defee ci ni mu waree su fekkente ne nag ñoom dañoo doyal ci moom nañ ko ko wax mu leer nañ moo gën ñu koy lam-laamee lii moo nekkoon bokk jullikat yi li gën a fës ci biir jullikat yi ñu leen di ñaanal njeextalu bës ak jàmm Mesdames et messieurs, bonjour. Après la guerre au niveau des urnes, place à la guerre de communication. C'est en se donnent les deux grands adversaires, notamment la coalition majoritaire Benno Bokk Yakaar et l'intercoalition Yewwi Wallu. Selon nos confrères de Sud Quotidien, après la sortie de la coalition Benno Bokk Yakaar par la voix de sa tête de liste nationale Aminata Touré, c'est au de l'intercoalition d'apporter la réplique. Ainsi, contrairement à la déclaration de la coalition Benno Bokk qui dit avoir remporté départements à l'intérieur du pays et 3

fichier électoral et donc les départements supposés gagnés par Benno Bokk Yakaar ne représentent que 45. Déthié Fall poursuit toujours dans Sud Quotidien les 55 députés sur les 112 qui étaient la liste nationale, le de 83 députés et cela signifie que l'intercoalition Yewwi Wallu aura février et par conséquent l'intercoalition Yewwi Wallu aura une majorité confortable à l'Assemblée le journal Libération, Déthié Fall poursuit ses propos en Askan Wi Wallu a renvoyé Benno Bokk Yakaar à l'opposition parlementaire car cette intercoalition a au moins 83 députés. Khalifa Sall, lui aussi, se prononce dans le journal Libération au camp d'en face que les faits sont têtus, mais l'intercoalition a gagné ces élections. Mais Aminata Touré persiste et signe l'ancien Premier ministre tête de liste proportionnelle de la coalition au pouvoir, Benno Bokk revient à la charge, nous disent nos confrères de Sud Quotidien. S'exprimant lors d'un point de presse hier, Mimi Touré a réagi à la sortie de la conférence des leaders de l'intercoalition qu'il avait accusé lors d'un point de des résultats pays a récusé dans la foulée toute possibilité de cohabitation. Donc retenons avec nos confrères du quotidien Le Soleil qu'après ces élections législatives, le suspense persiste. Benno conserve finalement Mbour, Kaolack, Louga et Kolda, Saint-Louis, Sédiou, Goudomp et Tivaouane basculent dans l'opposition et Benno Bokk Yakaar insiste toujours sur sa victoire et récuse toute idée de cohabitation. Nos confrères du journal L'Observateur trouvent tout simplement que c'est maintient dans une tradition électorale qui ne fait que magnifier la démocratie euh, sénégalaise. Aujourd'hui, dans l'analyse de ce comportement électoral qui déjoue les pronostics, nos confrères trouvent que maintenant, l'électeur sénégalais est plus que jamais conscient de sa force de frappe. Les psychologues Ngourdien et Ismaël Hassen, interrogés par nos confrères du journal L'Observateur, trouvent aussi que le peuple sénégalais est difficile à cerner en matière de vote. Ousmane Sonko, de Pastef, membre de l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu, a beaucoup influé euh, sur ces élections. D'ailleurs, nos confrères trouvent que de son premier fait d'armes lors des législatives du 31 juillet 2017 à la percée fulgurante de Yewwi Askan Wi, dont il est le chef de file avec les élections de ce 31 euh, juillet, il n'a fallu à Ousmane Sonko que cinq ans, presque jour pour jour, pour faire son trou et réussir ce qu'aucun homme politique n'a réussi avant lui. pour cause. Ousmane Sonko est en passe de contraindre le régime de Macky Sall à la cohabitation. Auparavant, ses résultats plus qu'honorables à la présidentielle de 2019 pour une première participation. L'affaire Adissar qui a conforté sa notoriété plutôt que de l'enfoncer et les locales du 23 janvier dernier avec la prise de Ziguinchor sont autant de bons coups à son actif. Cinq ans, cinq réussites, telle est la prouesse réussie par le leader de PASTEF, les Patriotes, patriotes. Et aujourd'hui, nos confrères du quotidien Le Vrai Journal nous font un zoom sur les cinq étapes marquantes de la jeune carrière politique de Ousmane Sonko. Terminons par le sport et c'est pour parler avec nos confrères du journal Le Record de Bambadien qui est poussé donc à la sortie à Marseille. L'attaquant sénégalais, nous disent nos confrères de Record, a en effet été relégué au cinquième choix à son poste dans la hiérarchie instaurée par le nouvel banc lors des derniers matchs de préparation. L'objectif est clair, le faire craquer et le pousser à accepter un départ qui pourrait rapporter environ 15 millions d'euros dans les caisses de l'Olympique de Marseille. Mais l'agent du joueur sénégalais a pris la parole lundi et a réclamé des explications aux dirigeants de l'Olympique de Marseille. Il a fait savoir que Bamba veut rester à l'OM, c'est son club et il a l'intention de rendre aux supporters toute l'énergie positive par des le terrain. 1 et sa position est celle de l'écoute. Il attend de la communication de la part du club et si le joueur n'est pas suffisamment bon comme son nouveau statut euh, dans la hiérarchie l'indique selon le coach, on attend qu'il l'appelle et le lui dise clairement. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.